إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها حولا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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق yépp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di jiital ci bi Serigne Bassirou nga xam ne moo fi teew di ko jox siyaare ak ab nuyoo bu mag ma joxal ñu ko xalif général de Mouride Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi di nuyu kilifa yi fi teew te bokk ci njabootu sëriñ tuwaa gi di nuyu suñu bokki taalibe yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci jataay bi di yëkkati kàddu yu gàtt rek di dalal comme niñ ko baaxoo defee daanaka xaw ko woon a jar ndax Serigne Moustapha moom ku nekk xam na sama diggante ak moom. lu mu ne rek maa nga ca fu mu tàmbali ma tàmbali ba fu mu taxawee fa laay taxawee loolu nag du lii moo ko indi sax mu kàddu Abdou Lahad Ka mooy meeru Touba moo indi loolu déedéet suñu ànd ma moom dem na juróom fukki at ak benn ci ren kon defe naa ne loolu lu yàgg la ah, di dalal ñëpp di ko sant ñëpp di ko jox nuyoo bu mag ak cant bu mag ak siyaare bu mag mu jox ko mbooleem njaboot ak Mouhamadou Lamine Bara bi waaye di ko jox siyaare bu rëy mu jox ko sëriñ Abou Mbakke moom sëriñ Fallou ak mbooleem njabootu sëriñ Fallou di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ci bis bu tedd bi di wax tuuti rek ci sëriñ Alhaaji Baara bi nga xam ne moo waral bis bi moom de li sëriñ Abdou waxoon rek sëriñ Mouhamadou Lamine Bara day wax ci moom yomb na ku amee bët sëriñ laa dafa am ku amee bët bee lu ne fang jarut naa ko ma nga ne ndax ni nga ko gisee la ko gisee ku amut bët nag jarut wax ma nga ne ndax boo ko wanee du ko gis waaye ala sëriñ Mouhamad Lamine Baara moom suñu borom da ko dimbale mu nekk royukaay ndax kenn xamutoon lu sa alaaji Baara bët wala lu mu am lu dul sëñ Fall ci sëñ Fall la tàmbalee ci sëñ Fall la yem bëgg sëñ Fall rek la def sëriñ Fàllu la lii ñuy wax nag soo loo yor taatan ko joxe ngir yàlla soo geesoo gis ku la jox lu ko gën fuuf ngir yàlla loo taatanu ko joxe ngir yàlla boo waroon àdduna ba mu daj doo gis ko la ko àttana jox moom loolu moo ko dal ci sëriñ fal ba tax na li ko ci yàlla mayin nag yombul na benn xisa bu gàtt rek yaakaar naa ne kilifa yi danañ ko bàyyi xel muy keroog bi Serigne Fallou di seeti maam seex Ibra Fall njaareem eh, ngaabu gannaaw bi Serigne Touba ñëwee ci jumaa ji te laxasoon fa juróomi téeméeri donga benn yoon bis boobu ci jamono yooyu fukk ak juróom-ñaar daal ci suñ borom jël leenti Sëñ Fallou yëg ko ñëw di ko di ko seet si mu toog ba mu yàgg ma ne ah am na luy xeeñ sëñ bàmbaa ngi may xeeñ loolu am na ko ko dégg nettali bu yàggul rek sëriñ Tuubaa da nga may xeeñ nit ñi génn naa ah sëñ bi de moom li mu wax moom jaaxal ñu fii di kenn ñëw fi ne ñu seen sëñ Fallu muy ñëw sëñ Fallu ñëw na ko waaye bàyyi Cheikh dama koo yéex a su ma ko teel a néeg du am te bu ñu fi ñëwee dootu fi am mukk defe ne histoire la boo xam ne ku xam histoire bu Cheikh ak sëñ Fallu war nga cee mën wax lu bare bare bari loolu euh, histoire la ci yoonu murit ci mbiram sëñ Fall moo xam ne mu ngi ci taarixu yoonu murit ah sëñ Alaaji Baaru nag suñ borom da ko dimbalee ci sëriñ Fall keroog defe naa ne Cheikh Ibra wax na ci Alaaji Baare mii wax ju doy waar keroog la ko wax keroog la ne doomi sëñ Bàmba ji dana toog ba sa so dana defal sëñ Tuubaa lu rëy dana fi bàyyi ku defal sëñ Tuubaa lu rëy te loolu mooy li alaaji def nit la koo xam ne la sëriñ Abdou Lahad waxoon adduna de moom du fu ñu toog jaarukaay rek la waaye boo fi jaaree rëdd rëdd boo xam ne ku yoo xam ne jaaroon def moom nag dafa naa ne ñëpp xam nañ ni lim liggéeyal seen fan ñëpp xam nañ lim liggéeyal seen tuwaa yaakaar naa ne junjub masaalikal janaan rek doyoon na liggéey ci yoonu murid te gu nekk gis na gannaaw bu sëriñ Abdou Lahad lijjante këyit yi ba mu nekkoon turu communauté ba Sëriñ Muntaxa ñi nga xam ne moo ko julli lii mooy liggéeyam Sëriñ Tuubaa lu mate def def na ko nit ku baax la ku bëgg lu baax ku def lu nekk Sëriñ Mustafaa nag lii rek la war a def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci boole gi ñu yàlla boole moom waaye bu baax a baax ci ay jikkoom ndax su fekkoon ne li wolof di wax dafa mujj pësu bi mu réer day man ci gàcce gi danaa ci jël sama wàll waaye nag bi mujjee possible mu réer it ndam li sant naa ci yàlla ndax nit de bu ngeen àndee juróom fukki bët bu yëpp benn bis carrière suñ carrière yëpp ñoo ko ànd muy nit ku baax ku bëgg lu baax defe naa ne as la ab jullit la ku doylu la ku bëgg mu suñu li ko li mu am it jafe la ci biir bokk yi ndax suñu soo ñëpp ko bëgg ñëpp xam ne ku doylu la amul benn complexe. loolu nag ci jikko yu gën a rafet la bokk kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ndokkeel. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi di ko jaarale jëwriñu kër Cheikh Mouhamadul Fadal di Cheikh Abul Baraka waaye jëwriñu kër Cheikh Mouhamadul Amin Baara Cheikh Moustapha di ko teg ci loxol waajuram xaritam ak Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir di ñaan yàlla yàggal seen taxawaay lool ca may leen wér xam naa kàddu yi yu gàtt lay doon ginnaaw boo xamee ne kilifa yi sàkku nañ ko ca ñun ñuy ay taalibe di fas yéene di wéye ndigal yeeg ñoo ngi koy man insha allahu taala bis bi nga xam ne moom lañu nekk bisu fàttaliku alxaaji moom Amin Baara la bisu fàttaliku nag buñ koy wax ko fi nekkoon ci nekkatu fi la loolu rek doy sëkk ak bind ci képp ku teew ku nekk xam ne yàgg-yàgg bis bu mel nii danga ko am dara du la ko tey am ndax lu ko tee doon am rek Cheikh Mamadou Lamine Baara du ko am muy ab juddu di xam-xam di ak jaamu yàlla bu dee kàttan bu dee lu mu doon rek du tee nit ki bis dana xëy ñu di ko fàttaliku fàttaliku boobu nag sëriñ Abdul Ahad ko sànq mooy li sëriñ Abdul Ahad waxoon adduna moom da nga jaar jàll waaye fexe ba boo fi jaaree ba jàll bàyyi fi jeexit duñ lay xoole sëriñ alxaaji Mahamadou Lamine Baara nag suñu borom defar na ko tawféex mu bokk ci ñi nga xam ne seeni apprenti bàyyi nañ ko ci jamono ñu bari mën a wax ci moom ca ku nekk di wuute ak sa morom li mu wax ca wax jëpp nekk wax ju wér ci ab jëflanteem ak doomu aadama yi lu bari la waaye kon man tënk yu ndaw loo xam ne képp kun doon ci war na koo bàyyi xel di ko ci roy bokk ci li si gënoon a am solo mooy li ñuy wax muayasatu ahwaali naas li nit ñuy dund yow mi nga xam ne xëy na sax dundoo ko waaye nga di ko yëg di ko dund ak ñoom yëg-yëg boobu fu nit toll ci ab dund nga ànd ko ak moom ci aw dundin loolu sëriñ Alxaaji Baara ràññi ko woon na ci lool ku am jafe-jafe moo xam ñàkk la dana ko dund ak yow ku am ci wàllu yoon dana ko dund ak yow ku am jafe-jafe ci xat-xat yu man doon dana ko dund ak yow loolu dafa bokk ci li ëpp solo mooy nit ki li muy dund boo ko ko mënta teggi nit mu yëg ne yow yaa ngi ko bokk ak moom ci ay yëg-yëg sëriñ Alxaaji Baara ku mas dem ci moom ci aw metit ci ay tiis ci ay jafe-jafe da yëg ne moom li ngay njëkk a yëg sa diggante ak moom mooy xolam bii day li ci nekk bu mënoon a wekk lii la dal nit dégg da koy sekk nit dégg da nga yëg bu baax a baax lam cay def mu doog ko caa def ci ay taxawaay yu am solo sëñ bi wax na ko sànq moo waraloon bëggul woon ku néewal doole nit bëggul woon ku néewal doole nit bëggul woon ku doyadal nit bëggul woon ku toroxal doomu aadama waaye bëggul woon it doomu aadama ju nekk ci jafe-jafe ñi du ko seetaan jamono bi nekk ay yitteem mi ngi nekkoon yittey doomu aadama yi loolu kon ko dund war na koy bàyyi xel bokkoon na ci li ma tarooyee loolu it mooy ashuur bi jalaalat masuuliya maanaam responsabilité bi nekkoon ci loxoom mu yëg ne responsabilité bu diis la ba tax na mu yëgoon ne moom moomu ko du ceegi ne dafa nekk sang ci kaw ay rakkam wala ay doomam waaye daf ne woon ña ko moomoon dem nañ ñi ko bokk fi des loolu wax ju rëy la wax ju riche la ña ko moomoon dem na ñi ko bokk fi des loolu du dund ak ñoom moo waraloon mu daal di séddale responsabilité yi Cheikh Mamadou Bachir mu Cheikh Abdou Khadir mii jiitu comité ko lool feeñal na lool ca ba muy ba mu koy tànn di ko teg xëy na tafaat man-man yii nekk ci moom xamuñ ko woon waaye lan moo waral ñu xam ko tey ba doxalin yi ñu di ko doxee ba màggal gi ñëpp gis seen bopp mooy yëg ne li responsabilité bu diis la boo xam ne am na lum ci mane am na wet goo xam ne daf koy jox ay nit ñu taxaw ci taxawaay yi ñu war taxaw loolu lu ko mat a la boo nañ lu ko mat a roye mooy nangu woon ak diisoo maanaam amoon daan jox nit temps d'écoute maanaam waxtu déglu wu doy sëkk woo xam ne saa booy wax ak moom saa booy wax ak moom ak loo nekk nekk gone dana la jox nopp déglu loolu ba li ngay wax jeex yitte lu mu kawe kawe ak lu mu gudd gudd suñu alxaaji baara dawu ca dawu ca dagg dara danay jox nopp déglu la ba sa yitte jeex loolu képp koo xam ne jaxasoo ngaa moo xam ne dara nit daan ñëw ci koo xam ne ñenn ñi sax daanaka duñ sawar ci mu agsi ngir melokaanu nit ka mu ñëw yi alxaaji ubbil ko boppam ubbil koo xam ne déglu ko déglu koo xam ne yitte kooka même bu fajuwut da nga yëg ne ab xolam sedd na ndax li mu bëggoon am na ko loolu dafa bokk ci li nit ki war a bàyyi xel kon ci ay jikkoom it la bokkoon bokkoon na ci ay jikkoom it radiyallahu anhu mooy suufeel boppam maanaam wàcce darajaam wàcce darajaam musta nangoo feeñe lul ak taalibe musta nangoo feeñe ak taalibe dundam gépp loolu doon feeñal lenn luy niru muy incarné ak daraja daraja yi Cheikh Amadou jim jim am ca mu doon sëkk ki mu doon te mu doon sëkk bi mu demee ba ba yëpp daje ci loxoom it maanaam amul lenn lu mu feeñal ci dara yooya jamono gi day gën a suufeel boppam day gën a wàcc boppam surtout dara ci programme bi yoroon loolu it di lu mat a bàyyi xel ci koo xam ne képp koo xam ne bëgg nga royukaay nga xam ne Cheikh Alhaji Mouhamadul Baara royukaay la woon ci loolu ci jeexal royukaay la woon ci jël responsabilité ci bu jël nga jotee mu jël responsabilité ci daawu ci bàyyi xel kenn mën naa diisoo loolu alxuraan digle wa shaawirhum fil amr waaye fa idaa azamta fa tawakkal ala allah loolu nekkoon ko alaaj baar bu baax a baax daana diisoo de waaye bu jël diisoo jotee nag diisoo bi muy jël moom xoolu ci neex na kii ak na kii xoolu ci dana dana dal ci kaw kii ak moom day jàpp ne lii moo gën mu jël loolu fulla jooju amoon na ko kon amoon na ak woyof amoon na wàcc amoon na ak waaye amoon na fulla ju te nekk saa bu saa bu waree taxaw ñëpp xam ne Sëriñ Alxaaji Baara taxaw na li ñuy jeexalee mbokk yi mooy jumaay Touba seede woon na lool alxaaji Baara di lu am solo ci kilifa aminu alxaaji Mahamadul Amin Baara day ñëpp xam na ne ràññi na lool ràññi woon na lool ba bi mu ajjuma jim mujj julli ji nga xam ne booba xat na lool mu génn ci màggal gi màggal gi mbooloo mi fees dell ñu ñu dogu lool ci mu bañ a julli ji ngir lan ngir xataay gi yërëm ko ci mbooloo mi mu ne boo doon raami damay dem bu ma doon raami damay dem loolu nag ku waajuram sa waajur feeñ ci Kazu Rajab defar jumaa ju mel nii sa taxawaay war naa ràññiku ci loolu kon loolu lu ma lu ma royee alxaaji Mouhamadou Lamine Bara la sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yow sa fan gudd ndax yaa ngi ci tànk yi wax dëgg yàlla fépp foo xam ne nekk nga fa la fa gën a ràññiku say barab mooy jaamukaayu borom bi tabaaraka wa taala jumaa ji seere na ko bépp barab boo dëkk bu nekk jaamukaayu yàlla ba loolu kon ñi ngi ñi ngi dalal suñu xel loolu damay wax ne boo waxtaanee ci kilifa ba noppi baax na ci boo geesoo ci njabootam boo ne kii doomam la mu am lu ko firndeel sëñ Moustapha mboolem mi ngi wax ci alxaaj moom dal baara boo ñëwee da gis ay mandarga yu leer nañ ci ne kat kii kat doomu sëriñ alxaaji baara la njaboot gépp noonu la ñuy mel ci woyof ci wàcce seen bopp wàcce seen i seen i daraja mën a jaxasoog nit ñi eh, mën a déglu nit ñi man a ànd ñoom seen i jafe-jafe ci taxaw ci di ko faj yàlla taxawaay bi yàgg yàlla ñu ko yàlla fayal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokki taalibe yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Mamadou Lamine Baara Mbacké moom sëriñ Fadilou nuyoo boobu yi nag ñu ngi koy teg ci loxoy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir moom it mu teg ko ci loxob sëriñ aboo moom sëriñ faddilu waaye sëriñ aboot moo koy jottali xalif général des mourides muy sëriñ muntaxa mbakke bokk yi sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen wax ni woote na waaye tàngam lu ngeen ko wuy si ngéen ko waaye bi ngeen ko wuy seet ànd ngeen ak seen jëf indaale ko kenn ku ci nekk yéene woon defar bis bi moom képp sëriñ bi du ci doon dara loolu nag bu koy wax taalibe yi rekk lañ wax waaye soppe alaaji baara yi nga xam ni man mii maa leen doon recevoir ci sëriñ bi li ma fi recevoir ci ay daayira yi sëriñ bi kenn xamut nu mu toll waaye sëriñ bi moom moo toll noonu kon sëriñ bi mu ngi sant taalibe yi bu baax a baax di wax ni la sëriñ yi du waxoon ni fii kat taalibe yi rekk a fi nekk ndax lu ngeen fi gis taalibe yi rekk la kon taalibe yi kat war nañoo dellal sëriñ bi njukkal ndax seereel na leen lu rafet seereel la leen tamit ak taalibe kon wax joojee rekk ci la sëriñ bi di baamtuwaat muy sëriñ Moustapha nee na sant na leen bu baax waaye gërëm na leen bu baax seen taxawaay ci bis bi fii nag ci aliya fi la sëriñ Fadilu waxoon ni fii kat maa ngi koy sanc waaye dama ko def daara joo xam ni dama bëgg lépp lu fi ñor ñu def ko ci liggéey sëñ Tuubaa bii bi ma ko sancee ba ñu fiy bay booba nawet yi taxut mu demee noonu waaye moom nag ba mu wakkirloo ci sunu borom jàkkaarlook sëriñ Tuubaa ni ko lii nga bëgg dina am daldi di wax ni fii lu ma fi bay ak lu mu bari bari su ci benn doom jàddee wut si lu dul jumaa ji yàlla mel ni xorom waaye mu mel ni nag sun borom wuyu ko ci ba mbooleem nawet bu ñëw gën a dàq morom ci kon waat googu sëriñ bi waatoon nag wàcc na ci kon bi mu defee noonu dafa rafaatalewaat na sëriñ baara aliya sëriñ baara fonk ko lool lu mu doon rekk bu koy tudd bu ci boolul aliya mel ni wax ji àggut waaye bi ñu fi jógee sëriñ Mustafaa casaat aliya tabax daaru mbindam kër goo xam ne gii kër gu mucc ayib la dafa jàkk ju neex a jaamoo yàlla waaye mu ni man dey duma def nii damay dem aliye rek di ñëw daaru minam kon de waa daaru minam maa ngi jaayanteeg yéen wax ni maa ngi dem aliya dundali aliya bi mu ñëwee dani dan sëriñ baara bis bii la ko jëkk a taxawul te bis bi saa bu ñëwee gën a yokk gën a am maanaa gën a am daraja sëriñ mi bi ñu xoolee jumaa ji damaa xëy si fii rek mu ni ma man maa ngi doon waxtaan ci samam xel ni man daal jumaa moom fas naa tàmbali jumaa ji dama koy yokk daal di ko yokk ñeenti yoon yoo xam ne yokk na ko jumaa ji ca lam doonoon mu ne waaye nag li ma am laa cay def de du ma bind leetar kenn de du ni kenn it ñëwal def ci lenn dama ko bëgg a yaatal ndax sëriñ bi xatalu ko woon kon nag ku ci am loo ciy def boo ñëwee rek ma defal la ko ci defe naa jumaa ji àgg na ci wàllum tabax lu yàgg te boo ubbee magasin bi ciment baa nga fa kon loolu ak njàmbaar la ndax woon na fii laay teg sama piliyaan bii ngelaw li da ko daan romb ak naaju tàng wi ñu yërëm ko ci waaye dafay wax ni kuy liggéey nit da danga koy soññ fa lay toog di fa toog ba trois heures mu doog a dugg ci julli gont soit nekkoog maçon yi ba fii mu àgg tey kon sëñ Moustapha li nga defal alaaji baara doonoo yaafus doonoo doom joo xam ne da ngaa bëggoon a doon sa bàyyi doonoo woon koo xam ne dañ koo la jëloon nekkoon ak moom rek fas yéenee doonub taalibeem kon wàcc nga sa digganteeg Alaaji Baara seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim allahuma ifta li laa ilaha illa allah wahdahu la bi ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi nag dañu koy jël teg ko ci loxool le porte-parole du khalife général des mourides sëriñ Bassirou Abdou sëriñ Bassirou ndam la ci yoon wi royukaay la ci yoon wi jëfam rafet na taxawaayam rafet na kon ñu ngi jël nuyu boobu di la ko jox pour nga jàllaleel ñu ko ci sëriñ Mountakha sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke ayam gi neex na Mbàkke Balla bi mu fi ñëwee ba tey itam lislaam jooyut diine jooyut li fi sëriñ Tuubaa bàyyi woon lépp ñu koy batale kon sëriñ Muntaxa ñu ngi koy sant di ko gërëm ci turu président son excellence Macky Sall sëriñ Muntaxa Basiru jéego bu mu yëkkati Mbàkke yàlla na ko yeggale sigil nañu sagal nañu bi ñu nuyoo ñëpp di nuyu sëriñ Moustapha mi nga xam ne tey mooy xalif général de sëriñ Bara Fallilou ñu ngi nuyu njabootu sëriñ Tuubaa ngi nekk fii fépp ñu fi teew tey nag day bis bu rëy muy bis bu ñuy màggalee jëmm joo xam ne lii jàmbaar la woon ci yoonu Serigne Touba muy Serigne Baara Fallilou Mbakke defe naa ne ay Serigne Baara ku ne fàttaliku na lim fi nekke woon ba mu fi ñëwee néew doole yi jooyeetuñu Serigne Baara am na yërmande Serigne Baara am na yëg-yëg Serigne Baara bëgg na Serigne Touba. kon gisam boobu tey bu dee tey la président Macky Sall ñu xam fi mu jaar ak Serigne Bara dafa rafet mu yónnee fi parce que kenn ëppalewut diggante Serigne Bara Fallou ak son excellence Macky Sall kon Serigne Moustapha bi fi ñëwee tey ci turu Serigne euh, son excellence Macky ñu ngi lay indil ab nuyoom ñu ngi lay ndokkeel ci bés bi. di la ñaanal foo bëgg a yeggalee liggéeyu Serigne Bara Fall lu yàlla nga ko fa yeggale excellence Macky Sall nee na bu ñu dikkee ci mbirum Serigne Bara waajuram di Serigne Fallilou Mbacké réew mi toll fi mu toll xat-xat yi am jafe-jafe yi am war nañoo ñëw fii sàkku ñaan ci turu Serigne Bara Fallilou Mbacké sàkku ñaan réew mi am jàmm réew mi am dal ñu bokk ndey bokk bàyyi fa ñu ko bëgg a yeggale ñu yeggale ko président nee na mi ngi lay gërëm di la sant di gërëm Serigne Bassirou Abdou Khadir mi fi nekk tey Macky Sall nee na mi ngi lay nuyu sëñ Bass mi ngi lay gërëm mu ngi lay sant defe naa wax ji jot a soril dañu fee ñëw tey ànd suñu kilifa muy le ministre conseiller Abdoulaye Gaynde Fatma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 sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Mouhamadou Lamine Bara Falilou Serigne bi mu ngi wax ni mu ngi jiital ci cant gi Seex Muhammadul Muntaxa mi nga xam ne mooy njiital yoonu murit gépp fu ab murit nekk rek yaa ngi ci ak kilifteefam mm-hmm. nee na mi ngi koy jiital ci cant gi di ko gërëm gërëm loo xam ne bu amee fu mu tàmbalee it amut fu mu yem ndax bisu magam ju baax ñi mu wuutu nee na lu ko ci waroon def na ko bu def lu ko ci warul ci ak mbaaxam ak woyofam ak wone fam teewoon sëriñ Mouhamadou Lamine Bara kon sëriñ bi nee koy sant ci loolu di ko gërëm di feddli ak taalibeem ak ko xaritam seen diggante su ngeen déggee ma tudd xarit nag dafay mel ni sëriñ Mountakha ëpp na ko xarit waaye dafa am sama benn xarit bu doon wax ak ab xaritam di ko laaj ni ko diw xam nga kan mooy ab xaritam mu ne ko waaw mu ne ko kan la mu ne ko sëriñ bu so ilimaan mu ne ko wax ma keneen kooku ëpp na ko xarit kooku tontu ko ni ko mu ne yàlla suñu borom day def na suñu maam Ibrahima muy ab xaritam kon foofu rek la ñuy teg xaritoo gi xam ne sëñ Tuubaa ku mu bëgg xaritoo moo lay xëccal boppam xaritoo ak yow mm-hmm. sëñ Sow yi na sëñ Muntaxa ab xaritam la ginnaaw bu loolu jàllee ñu ngi ñu ngi sëriñ Abou Baraka bi nga xam ne moo nekk ci kanam njabootug sëñ Fallou noonu la ñu koy ñaanal fanu gudd ak wér li wax ci sëñ Muntaxa rek lay wax ci moom moom it lépp lu ko mu fi ngi koy sant di ko gën a feddali ak njëgalam njëggalam ñu ko xamal ne ñun ci ginnaawam ci ak bëggam rek la ñuy nekk lépp lu bëgg danañ ko bëgg loolu kenn du ñu ci seen kon mu ngi sant sañ abo bu baax di feddali ak njëggalam ci moom di feddali ak taalibeem ñu ngi sant Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Sëriñ Abdul Xaadar moom Cheikhul Xadim ci kóllëre bi nga xam ni am na ko ci digganteem ak Baara am na ñu ñu wax fii wax nañ ko te defe naa am na jataay bu ma waxoon fii nee naa ko bu fekkoon yowmal xiyaam dafa teew suñu borom di xool ku am kóllëre bu fekkee ak ay examen yu ñuy def la yow di ko at mi ndax ku am kóllëre ci digganteeg sëñ baara nit ku nekk lu muy wax lam cay wut seede ba mën koo wax mooy la koo ko jëflante moom la koo ko jëflante ak moom te moom jëflante na ak njabootu Alaaji Maalik gépp ci woon boo xam ni am na ko diggante ak sëñ Baara fàttewul seen diggante ci dara Cheikh Mamadou Bachir sëñ Moussa ngi lay sant mi ngi gërëm ñu ngi fas yéene jàpp kóllëre boobu wax na ne yonent bi dafa wax ni bokku na ci euh, jëf yi gën a baax bu fi sa way jur jógee nga seet ñi mu amaloon kóllëre nga fas kóllëre ko di du ko dox min abaril birri an yasila rajulu ahlahu di abihi nee na kon kóllëre googu fas na yéene téye ko te du ko bàyyi ba faaw jërëjëf nee na mi ngi sant kilifa yi nga xam ni ñoo bokk mu nekk ci yoonu murit loolu dana ci njabootug sëñ Modou Moussa ba ci njabootug Cheikh nee na gis na ñëpp na ko wootee woon wax ni bëgg na ñëpp ñëw ànd ak moom bésub Cheikh Mouhamadul Lamine Baara bi ñaanal ko te santale ko ko nee na woote boobu dafa mel ni ñëpp dégg nañ ko ndax ñëpp ñëw nañ ci na mu ko woote woon kon ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp mu daal bàyyiwul kenn dafa xam ne bu tuddee ay tur dina am ñoo xam ni xel mën na leen a tudd moo tax nag mu wax ni bàyyiwul kenn li dale ci njabootug sëñ Moussa ba ci njabootug Cheikh Mouhamadul Mourtala kenn ku nekk yabal na ak cantam ci sa jëmm mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu jàllee it nee na ngi nuyu bokki jullit yi nga xam ne ñoo dëkk ak moom fii ci Sénégal ñëpp ñu ëpp gis na leen ñu ñëw fii te li leen indi mooy sopp sëñ Baara bëgg ko ak amoon na yéene ci moom yéene jooju nag ñu ngi gis na ñëpp teew nañ fii feejal ko ci jëmmam kon mu ngi sant waa réew mi yëpp bàyyiwul kenn. ku ku dégg rek kàddu gi da nga xam ni cant googu ci nga bokk wala yaa tax mu koy wax ñu sant ñëpp gannaaw ba loolu jàllee li may wax moom ko waxloo mu ni ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba sant gi ñuy sant yàlla bu ko sant sëñ tubaa mooy musal gi yàlla musal sëñ Touba ci seytaane bu génne jëmm sëñ Touba ci loxol iblis iblis moom nga xam ni ku bari fitna la alhamdulilahi lazi axrajani min yadi iblis al kasiril fitani nee na mi ngi ciy sant yàlla ci loolu ndax bu fekkoon ni sëñ Tuubaa kat ñi ko yàlla def def ko ni moom du xam fu mu jëm ndax amul lu génn sëñ Tuubaa léppam ci sëñ Tuubaa la tàmbalee di ci moom la yem sëñ Tuubaa rek la bëgg kon nag bu bu bu yàlla mosalee sëñ Tuubaa ni ñu ko mosalee ci iblis kon loolu moom jàpp na ni am na ci cant bu mu war a béral ba ñëpp dégg ko te xam ne ni mu moom murid yëpp a ko bokk ndax xam ne ni mu bëggee sëñ Touba la murid yëpp bëgg sëñ Touba sëñ Bass Abdou Khadir ñoo ngi lay ñaanal nga mucc yow ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi ñoo ngi lay ñaanal nga gudd fan ñoo ngi lay ñaanal nga wér amiin sëñ Fallou sa waajur ba dafa waxoon ni dee leen ñaan gudd fan lu baax la ndax nit bu guddul aw fan lu mën a doon desu ko xam kon yàlla na nga gudd fan sëñ bi yàlla na nga mucc da nga xam ne ñun ñu ne tey lañ la gën a bëgg tey lañ la gën a sopp tey lañ la gën a doyloo ndax nit ku baax nga sëriñ bi nit ku yaru nga nit ku dal nga kenn duñu dégg nga tontu kenn kenn duñu dégg nga wax loo warta wax lii may wax na ci kàddu sëriñ ko waxee ma wax sama xalaat sëriñ Moussa moo ni ma waxal mhm. kon sëriñ bi sëriñ moo la yónnee kàddu yooyu muy kàddu jant nee na su su loolu jàllee mi ngi sant rakkam yi nga xam ni ñoom la bokkal sëriñ Baara mhm. fépp foo xam ne tegoon nañ fa sëñ baara seen way jur wa teg nañ ko fu moom mii ci cofeel ci bëgg ci doyloo lépp lu ñuy def dañu ñëw ci moom wax ko ko lu mu leen ci digal la ñuy def lu mu leen dugalul ñu bàyyi ko kon euh, waa ñu ngi koy sant kon ñoom ñu ngi sant ci loolu bu baax a baax a baax moom mi sant njaboot waaye njaboot bi dugal ba dikku nañ ñoom it di la delloo ak cant cant boo xam ni bu amee fu mu tàmm bu amee fu mu yem it amul bu amee fu mu tàmbalee it amul fu mu yem ndax mat nga leen way jur yaa ngi ci seen kanam won leen nga bëggoon seen way jur wa kenn ku ne nga nga won ko ko ci jëmmam kon ñoom it ñu ngi lay sant di la ñaanal nga yàgg fi di ñaanal ñu dara lu war a am ci suñ baara rek yaa ngi taxaw ci suñu kanam ngir am loolu kon sëriñ bi ñu it mi sant njaboot gi nga xam ni xalaat bi ñu amee woon dafa dëppoo xalaatam mooy tudde bisub conférence bi seex abdul xaadar moom seex moom seex muhammadul faadal nee na loolu xam na ne bu fi sëñ nekkoon bu ngi ko tuddee dana ci bëgg ndax rakkama woon xaritam kon loolu mu ngi sant njaboot gi bu baax ci taxawaay boobu mu ngi wax ni ñu ngi sant mboolem télé yi fi teew yépp ñu Touba TV 2STV TFM kenn ku ne ci ñoom def nga ko mën ko bëggee woon ba def loo xam ni foogewu ko woon noonu waaw ak seen TV kon nag nee na sëriñ bi nee na jërëjëf bu tuddee télé yi rek mel na ni borom télé yi la tudd ak mboolem site yi nga xam ne tudd ñu leen te ñu teew fi nee na mi ngi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa wa rahmatulah. bokk jullit yi fi teew yëpp. mbokki taalibe bi xam naa wax ji nag du gudd ndax ko dégg kàddu gi rek xam ne dafa xaw a gàntu tey kon daanaka lépp liñ ci waroon wax ñiy jëkke waxoon nañ ko rawatina alxaaji Fallou Ndiaye ak si Modou Ndiaye ci waxtaane borom bis bi di Cheikh Mouhamadou Lamine ci kàddu yi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fii jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd gër ndax ku fàttaliku bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di nekk Serigne Touba cër bi nga ko joxoon ci biir yoon wi ndax maa ngi fàttaliku bokk naa ci ñu ngi ko njëkk wax ne ma Cheikh Mouhamadou Mountakha laa bëgg def sama jëwriñ ndax ku jubal nit ñi la maa ngi fàttaliku mu topp ko topp bu rafet Cheikh Mouhamadou Lamine Bara doy woon ko doy la sëkk fàttaliku bi mu tabaxee jumaay daaru muy bi mu àgg boole ko juróom ak ñaar jox ko ko addiye laxasaayu ko dafa laxasaayu moo tax waxtu ne ko fàttali mais ba mu koy def moo dem njabootu Sëñ Tuubaa gépp suñ mu taxaat leen ko yëgal neen yéen ñëpp doom boobu ñu dee ci mbaaru ba mu fa jógee ma ne ma li ma ci jublu woon de mooy ñu xam ne liggéey bi ci loxoom la ne te ñun ñëpp war a laxasaay topp ci jàpp jàppale ko ci liggéey bi wan leen yoon kon ñu ngi koy ñaanal yàlla suñ borom guddal aw fanam te doon ak gërëm di siyaare sëñ Ibou Mbacke mi nga xam ne mooy xilifatu Cheikh Mahamadou Fadil mi nga xam ne tey moo fi jëkk xëy si fi ak sëñ Moustapha bis bi ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa yépp kenn desut yaakaar naa lim ne ñëpp. di teg bi ci loxol Cheikh Mouhamadou Moustapha mi fii jëmi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mooy itam ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd gër ba mu mottali mboolem naan yi nga xam ne waaye juróom bu tedd ba amoon na ko ci liggéey Sëñ Tuubaa ak liggéey Cheikh Mouhamadou Fadil te suñ moom defaloon ko ci ndimbal ak tawféex waaye moom mii itam mu wutu ko ci loolu ci mu gën a rafete ndax fa xalafa min badihim xalfun adaa'u salaat loolu dellu ko wattabaau shahawaat fa sawfa yalqawna xayyan fa xalafa min badihim xalfun yooyu rek fi ne moom nag <coughs> suñu doon dafa wax ci alxuraan ne summa ja'alnaakum xalaa'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'maluun kon bu la jiitalee ci kanamu ni jiit nii lay seet di la seetantal ba xam ci loo nekk kon sëñ Bara li ñu fi wax ci ay jikkoom rek moo newoon ci waaye da koo doon ndax mboolem jikko yi ndaa tudd Cheikh Mamadou Fadil rek ñu sëñ Bara mooy woyof ga ni Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou bëggee woon Serigne Touba itam noonu la bëggee woon Cheikh Mamadou Fadil sëñ Fallou daa wax ñëpp dégg mu ne doonu ma doon ju bëgg doonu bàyyam doonu ma ko bëggu ceexete bëgguma dara loolu sëñ Touba waaye sëñ Bara it noonu la defoon ci Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Fadil bëggutoon dara bëggutu nekk doomu lépp jaay na ko jënd ko taalibe ndax Cheikh Mamadou ko tawfeex jooju la ko suñ doon defal ba ko sëñ wax leen ni leen awma rakk awma doom awma jërbaat ndax lii ne day jaay te ku jënd doo ko am suñu jaayante jaay njureel jënd ko mu firndeel ko ci bayitam yu si yooyu ngay dégg biatu bunu watiya bil irada lakum likay uxsa bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha bi xayri manni fa taqbaluha ya malasu karaman la situma bayna al baraya alama kon sëñ ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa taxawaay ndax ni ma ko doon waxee rek sama diggante sa waajur àdduna sépp dégg nañ ko ñëpp xam nañ waaye nag ci moom gën a tàmbali sëñ bi xaar ñu boole waaye li indi sama digg moom nag ci moom ngeen a jóge kon loolee duñ ko fàtte mukk nga sàmm ko ci nekkam sàmm ko ginnaaw jàpp ma ba àdduna sépp xam ne fa ma teg mënoo ko wér kon sant ak ngërëm képp lañ la amee ak di la ñaanal tey lu saw doxee ni nag. ndax na sa waajur meroon ci diggante taalibe yi jege nit ñi lool ubbi ko ci ñoom lool gën leen woyof te fu mu dégg solo doomu aadama bàyyi lépp lu mu doon def ne ca suñu misaal moo koy wax ne saa solo waxee yitte rek yitte nit la waaye soxlaam kenn du ko dégg loolu nag ak jaayante ak dogu ak gëm suñ Tuubaa ak gëm suñ Faal mu tax nga def ko waaye yaakaar naa fekk na la ci ndax ñu jëkk wax ne ko ku ñëw aali gii daa fi ñëw gis ni ñu ko defe dana xam ne wóotu nga Cheikh Maodo Amin waaye yokk nga ko te ku yokkul yaa wàññi kon nag ñëpp lay ndamoo di la puukarewu te la ñaanal yoon yi nga xam ne tege nga ci muy sa dund gépp nga jox ko Sëñ jox ko taalibe Sëñ Tuubaa ndax la sama ju tëdd ji daa wax naan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nga ne ci ku ñëw sa kër ka gën a suufe ci nit ñi bu di koy mën ngaa bokk aw ñoom kon gëmal ne la Sëñ Tuubaa santaane woon rawatina mu waxal ko Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil xamal ne yaa ngi ca te mooy toppatoo taalibe yi di xendi ñoom yaa ngi koy def kon ñu lay santaal bu baax di kàddu gi nag tey dafa xaw a naqari daanaka xanaa dama mënti ñàkk wax rek waaye kon sax du ma mën a wax waaye ñu ngi nuyu ñu fi di nuyu Cheikh Abdoul. Euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma nga xam ne teewu fi teewaayu nguur waaye defee teewaayu doomu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye nekkoon xaritam ndax maa ngi fàttali ko seen seera su ci wax am na bis boo xam ne suñu baar ko ne li tax mu boole ak bés yi kat mooy bëgg mu ma gisatul lépp leer ndax dara du nekk kumpa kon loolu kulere la kon jotaay bi loolu kon di nuyu Serigne Jilim Cheikh Mahmoud Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké Fallilou mi nga xam ne mi ngi fi ak Serigne Cheikh Assis ak sëriñ Sidi ak mboolem mbokk yi fi teew bàyyiwuma kenn di nuyu Isma Diouf mi nga xam ne moo fi teewal président de la République Macky Sall ndax ndaw li mu leen ñoon dafa xaw a tardé mu teew fi waxaale ci seen tur xam naa suñu Mbacké dana ci dellusiwaat ndax diggam ak suñu baaraam war na fa yónnee kon moo tax loolu ñu ngi ko ci santaat di ci gërëm. di nuyu Abdul Ahad mi nga xam ne moo leen teewal ci moo leen teertu te ubbi kàddu yi di ko moo nuyu di ko sant ak mbooloo ñu fi teew daal bàyyi kenn ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu إبليس إذ ناديته بيا ولي أياس إبليس إذ ناديته بيا ولي